donc bi nga xam ne tey jii nii dafa nag euh, teere fii ci géeju Wakaam gi euh, nee nañu fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan mu doon la partie visible de l'iceberg ndax l'immigration clandestine dafa reprendre jamono ji nii euh, ban sentiment bon lay animé boo gisee ndaw ñi nga xam ñooy l'espoir de ce pays di ñàkk seen bakkan comme ça en mer. journée bi yëpp bi ma yégee information bi tiis ak naxar mais lii dafa nekk loo xam ne mooy ñun lu ñu gis Mhm. parce que am na ay chavirement pirogue yoo xam ne suñuy am nekkul ci code bi la ñuy am mais ci diggu océan bi la ñuy am. Mhm. te kenn mun na jox un un vrai chiffre dañuy estimer rek. pour dire encore une fois que li dal Sénégal tey am na certainement lu ko raw te di kon ne di koy dal. Mhm. léegi au-delà des émotions war nañu mën a taxaw pour def diagnostic problème bi pour seet ban solution la ñu mën a apporter wax ba pour freiner. totalement immigration bi. Mhm. mais pour ñu seet nan la ñu mën a wàññee conséquences yu bon yi nga xam ne moom la ñuy enregistrer chaque fois. Ah, par rapport à l'immigration clandestine euh, mu mel dafay nekk benn cycle de temps en temps ñu koy gis muy muy am euh, au Sénégal ay atum 2005 euh, 2006 su wàdd bari woon na ba vraiment am sax lu ci amoon lëkkaloo diggante bi bitim réew ak Sénégal yi fi wàññeeku su Macky Sall l'année dernière ou il y a deux ans mu tàmbali ba aussi depuis quelques jours ñu ngi koy wax ndax dafay wane benn. malaise bu xale yi di dund une situation difficile dans ce pays. situation bu métti ak ñàkk espoir parce que tey war nga mën a xam ni au niveau de statistiques. lu ëpp 60 pour cent de la population est constituée de jeunes. waaw te ñu naan la tam année bu nekk 300 000 personnes ñoo nekk sur le marché de l' emploi. Mm-hmm. gouvernement bi par rapport équation boobu amul solution bu mu trouver lu dul. créé un certain nombre de dispositifs en termes d'accès finance comme DER ak yeneen structures yi comme ay Prodac et cetera tout et tout mais boo seetee ba seet bu fekkente ne yow outils yi ngay proposer pour mën a fixer jeunes yi nekk ñu joxe ay résultats c'est parce que simplement dooy faral di def ay évaluation ma jox la benn exemple Prodac boo jëlee dossier Prodac ci conception bi dañu calculer wu ni Prodac dafa amoon capacité de réception du travail à hauteur de trois cent mille emplois. Mhm. heure bi may wax nii ak yow à peine six mille. xoolal différence boobu rek ça sur trois rek te fële ñu naan la chaque année trois cent mille mooy am. Mhm. Prodac dans sa constitution six mille. c'est parce que volonté politique dafa amul nekkul ay slogan ñoo mën a sauver situation bi. Mhm. Prodac ak tout ce qu'il y a comme malversation comme problème de gestion et tout na aujourd'hui nii amul. beneen élément bi mooy confiance aussi dafa am jeunes yi dem nañu ba amatuñu confiance wóolatuñu gouvernement munoo wax ba ñu déglu la. Mhm. tuure nañu la doom c'est pas par hasard mais sax ci manifestation yi jeune yooyu ñu toujours ñu nekk en première ligne. Ah, am na parce que lan la lien bi lien bi c'est c'est lié pour te mhm. dire que ku dem ba xalaat ni il est un mort vivant. dafa nekk nii mais en réalité il est mort vivant. ndax lan day dugal ci boppam parce que perte na tout espoir yaakaaratul ci dara. mi ngi considérer carrément que dans une société nga xam ne tout est réglé au niveau des relations humaines en termes de relations financières et économiques mhm. boo amulee dara parfois da am sax gàccee pour ñibbi sa kër parce que da leer ni fi ngay dem doo fa fekk dara mhm. loolu moo indi ba booy perte tout espoir au point que ñoom dañu considérer nii soo toogee tu es mort soo demee tu es mort donc tu n'as rien à perdre mieux vaut ma song mais est ne sont euh, par des waaw mais ñun opposition kan moo déglu du ñun ñooy décider ñun suñu. <laughs> seen influence ci jeunesse bi waaw moom laa la wax influence la ñu mën a am fii c'est une question de vie influence bi balaa muy mën a kii mooy lan ñun su comme par exemple proposer une alternative là d'accord. Mhm. mais nii nii lan la ñu a def comme solution. damay def analyse nee la donc bu fekkee ne léegi jeunes yi dem nañu ba gëmatuñu kenn. Mhm. ñu perte tout espoir amul lu leen di mën a téye gis nga engagement boobu moo traduire sur le terrain par. cette forme de résistance boo xam ne. irréductible. Mhm. parce que lan la tu te dis carrément que je n'ai absolument rien à perdre. fu mu ne nii dama nekk un mort vivant. Mhm. damay dund nii rek mais en réalité je ne vis pas. Mhm. boole ci inégalité sociale yi di am. waaw pendant que xale yooyu di kii nii di souffrir à côté ñuy gis ay luxe insola à côté ñi di dawal ay oto ñi leen war a toppatoo. di bu ñuy mën bokkul ak ñoom di bu ñuy aspirer. dysfonctionnement boobu boo ko jëlul en da ngay indi finalement un conflit dans les rapports sociaux. entre ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk tout espoir ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les élites. Mm-hmm. te conflit boobu boo ko réglé wul ça explose socialement après la mer ce sera des révolutions